ki nga xam ne moo dàq jàng ci réew mi ci at mi maanaam mooy meilleur élève bi yéenekaay gi di réew mi quotidien ak le soleil njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb ca ndaje ma wax na ci li nga xam ne mooy violence yi ñu nemee ko ci école yi nee na nag lu jëm ci wàllum xeex beek wàllum xulo beek wàllum yàq gi ak wàllum tricherie gi loolee ci boppam mënuñu ko nangote ci école yi te ñi nga xam ne ñoo koy def ñoo ñooñee nag seen place du ci école yi seen place du université yéenekaay gi nee na en tout cas li am ba ñaar ñi nga xam ne ay seex lañu am lu toll ci fukki at ak ñaar am nag nekk ñi nga xam ne ñoo gën a néewaat am bac ren jii doon jàngee ci lycée yëmbal niki démb Macky Sall na leen ca cérémonie ba daan leen di may li nga xam ne mooy ay bourse ñu mën a jàngee ji bitim réew yéen a kaay gi de la Soleil nee na concours général bi nga xam ne doon nañu ko amal ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi maanaam def nañu ko góor ñi yéen a kaay gi di la Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum politique opposition bi nga xam ne ñoo ngi taxawal ab coalition yéen a kaay gi nee na ñoom ku ji gi dañoo njortu ne Macky Sall dina def ay dëbal dëbal ba yàq xam ne mooy coalition ba yéene kaay gi du l'observateur nee na en tout cas lii am ba des daal fii nga xam ne mooy daaf daaf daal jamono ji xale ya ñooy xëy di ko sama ngir nag wut li nga xam ne mooy ay carte d'identité journal bi du l'observateur am na ay ndaw yoo xam ne ñoom nee nañu nguur gi dañu ko bëgg a jël te élection locale yi élection la yoo xam ne élection ndaw ñi la yéene kaay gi nee na en tout cas lu toll si ñeenti junni yu fekk juróom-ñaari téeméer ci ay carte d'identité yoo xam ne danañu ko defar par bis fi nga xam ne mooy daaf rek waxuñu nag yeneen gox goxaan yi yéene kaay gi du source ah xëy nag di xam ne journal bi jàpp na ne yi nga xam ne moom la ñu dëg ma lekk réunion yi Abdoulaye Diouf Sarr jamono ji di def ci biir Ndakaaru xool ana nan la mbir yi yéen gi di Dakar Times moom xëy ci Amadou Ba di ko càmbara ci jaar bi mu jaaroon ci gouvernement bi ak engagement politique am ak digganteem ak Macky Sall yéen kaay gi di Sud Quotidien nee ñi nga xam ne ñooy waa Sénat ñoom nag doon nañu wër ci Ndakaaru doon xool commission yi ba xam lépp good fine yéen gi di Rewmi Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci tamxarit bi ñi nga xam ne nag ñoo doon jaay cere maanaam daal bu tam xarit gi ñëwee seen mbir da doon dox loola waaye nag ren ji daal jaaykatu cere yi nee nañu seen mbir doxul la ko waral maanaam mooy coronavirus bi yéen kaay gi nee na légumes yi nga xam ne moom la ñuy faral di dafa dee cere ji ak ginaar yi loolee lépp dafa cher ba maara day taali surnal bi di Vox Populi ak La Tribune xëy ci Kunkande Kunkande mi nga xam ne moo waxoon ne dafay xar géej gi tey ji la waroon a xar géej gi bi nag nee na xar géej gi daal Kunkande ci boppam daan na koy reporter ndax nee na da cee bëri yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy nag nag wax ci baykat yi nga xam ne ñoo nekk ca na ñoom nag nee nañu lu jëm ci wàllum semence agricole yi ni nga xam ne moom lañ ko war a doxalee dara baaxu ci moo tax ñoo ngi sàkku Moussa Baldé ñu daal di koy dàq yéen kaay gi de Les Échos xëy ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci opérateur bi di Promobile nee ma mbàkk yu fay liggéeykat yi dañu ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ndax nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dundoo journal bi nee na bu ngeen xëyee nag dégg ñoo xamante ni dàq nañu leen ci kër gi wala ci opérateur bi di Promobile ca mbàkk yu fay bu mu leen bett bu ñu déggee tamit ñu ne am na ñoo xam ne ne fayu ñu leen seeni salaire maanaam ci kër googee bu mu leen bett yéen kaay gi dee sat xëy ci tirage au sort bi nga xam ne niki démb doon nañu ko def aju ci coupe d'Afrique ca Cameroun journal bi nee na Sénégal Malawi Zimbabwe ak Guinée Conakry ñooy laale yéen kaay gi nee na en tout cas daal groupe Sénégal bi nooy na loola El Hadji Ousseynou Diouf nee na coupe d'Afrique bi maanaam Sénégal daf koy gagné yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Lamine Golo coach su Balla Gaye numéro 2 nee na